dale nag jàmm ci li yéenekaay yi xëy tey Sud Quotidien rëdd si xëta mu njëkk Barça mbaa Barsaq dellusiwaat na ñetti téeméeri ndaw ñu réer ci biir géej gi fan yu ñu génn te kenn xamagut fa ñu ne mbir mi dellusiwaat mel ni ay gént ci bopp sénégalais yi yor yor di jotali ay kaddu ka Ousmane Sonko mi wax ak ndaw ñi naan leen bu leen dem ci mbëkk mi toog leen fii ñu ñàkkante ko ndax daw seen destin fajul mbir yi Libération banque ay baaraamam moom it di wàññi doore ko Kafountine ma ñu tëmba woon géej ay doomi Sénégal Sierra Leone ak Gambie ñoo si ëpp ay waajur yi seede di jottali yéenikaay bi ay kaddu yi leen seen doom dénk laataa ñuy jël mbëkk mi di des sa géej ba sa Tunisie tamit ñu daal di fay seetlu ni lu toll ci juróom benn téeméeri ndaw ak juróom fukk moom la tunisien yi jël sànni leen sa désert wa am ñu fa ñàkkagum seen bakkan am ñu nekk ci njàqare ak tiitange mba xamuñu fañ jëm enquête xëy ñu moom itam ci mbëkk mi rëdd ne nawetu mosiba naaru laay moo tàmbali jëm ci mbëkk mi nga xam ni dellusiwaat na muy àdduni jëwriñ bi ñu dénk wàllu bitim réew dafa wedd ba tëdd sa naaj wa ni ñetti téeméeri ndaw ndaw ñu wax ni ñu réer ci géej gi loole amut benn firnde bu koy dëggal la vox populi itam di ko yaatal ne Aïssata Tall Sall àdduna ni ñetti téeméeri ndaw yooyee ñu yi dañu réer géej amut dara lu koy firndeel jiital Pastef bi di Ousmane Sonko moom di joxoñ baaraamu tuuma nguuruk Macky Sall bi ne lu jig njàkk mooy njàkk vox populi si boppam rëdd itam ni Macky Sall dafa bëgg a ñàkk ki nga xam ni moom la fiy samp ñeel parrainage yi ngir mu bañ a am kenn ku koy fakastal bu ko fi tegee laas dikk moom itam ak juróomi na nataal ñu jege lool njiitu réew mi Macky Sall ne bokk na ci ñi nga xam ne njiitu réew mi war na leen mën a tànn ñu wuti ko fii Amadou Ba di fippu moom it ci biir laas Amadou Ba di fippu moom itam ci biir laas ne am na ay noonam yu koy jëm a fakastal saa su ne l'observateur di jàngat ay kàddu yu usman Sonko nar a yëkkati ba sub investiture bu ñu koy tabb ngir mu jiite fa ni ana yan kàddu la jiitu Pastef bi nar a yëkkati te itam ana yan pexe itam la nara tek ngir li daloon Karim Wade ca atum 2019 bañ ko dal moom jiital Pastef bi yéeni kaay bi biral ni Birame Souleye Diop moom fi mu toll nii procureur bi daan na koy jàllale sërëbës Walf Quotidien di ko feelu rëdd si xëtamu njëkk moom ne ñu bare bare ci waa Pastef sës rëkk ci Sonko ñu ngi ndungu jamono ji source a ñu tey ak xiiro yi lëmbee parti socialiste ndax Aminata Mbengue Ndiaye dafa sàmmontewul ak charte parti bi ba muy jox Macky Sall bopp ngir mu tànn kaku neex nar ko fee wuutu ñu seetlu ni dafa waroon yëgoo ak bureau politique bi ak comité central ba laata muy jàppal tànk kii di Macky Sall la tribune banque ay baaraamam moom it di wàññi ci fukki candidat yu bàyyeekoo ci parti bi di APR ñu sës rek ci Macky Sall bëgg bokk ñoom itam ñi nga xam ni Macky Sall nar na leen tànn ngir ñu jiite seen coalition bi atum 2024 bés bi le jour gën koo fësal ak nataalub Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba rëdd ne xeexoo bi tàmbale na dëgg-dëgg seen diggante kii di Amadou Ba jàpp ne moom la njiitu réew mi Macky Sall gën a wóolu waaye ay ñañu Abdoulaye Daouda Diallo bëgguñu koo déggee ci nopp boobee ñoom gis nañu ni moo ëpp mbooloo te itam déggal na kii di njiitu réew mi Macky Sall la stade le quotidien dikk ci réew yi nga xam ne ñoom la si se tànn ngir ñu amal ay jongante xaritoo ak Sénégal ñi seen xam màcc si wàllu football di tàccu Aliou Cissé réew yooyee sax stade di wéyal ni Sadio Mané gisut dara lu mënta tax ba mu toog Bayern de Munich ren ji yeneen transfert yu yooyu ñu mën ko euh, yër ci biir record mooy bu Pape Gueye moom gaynde bi fi mu toll nii xamagul fa mu jëm ndax dafa war a delluwaat Marseille am déet kii jëm Marseille kay te amuñu ci xel ñaar mooy Iliman Ndiaye suñu làmb dikk ak tontuk Ahmed Dem moom mi jam téer yi tëkku woon démb moom Ahmed Dem di àddu ni maa ko mën te maa ko ëpp doole ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet dara du la ci réew